jàngeen jëf mbokk yi li xew ci biir internet mi ngeen émission yi ci euh, heure bi ñu daal di ñëw dégtal leen lan moo gën a euh, xew ci biir internet bi boobaak leen ñu leen koy dégtal ci réseaux sociaux yi internet nag du réseaux sociaux rek yaatu na. min mm-hmm. ngeen hashtag bi bu leen neexee ngeen def Midi Plus Facebook live YouTube live Instagram live wala sunu net wala TFM lépp luy commentaire lii seen émission interactive ngeen mën am possibilité interagir ñu nit ñu daal di koy jàllale jaajëfal la mairie sa tagal nag baax ay waaye du tagal. musóor la dama koy kiwee noonu rek fulaar la dama koy kiwee noonu. waaw dama lay joxaale les termes les termes hijab yi ah il faut que ma jox la ko <laughs> tagal bi mooy bu yéegee ba ca kaw. Ah, waaw li yooyu nga daan def temps waaw waaw. di waajal yëpp ci ay xeetu waajal la waaye xamoo woon ma bàyyi ba nga dem rek ma ne saraax ci affaire bi <laughs> donc euh, di la nuyuwaale Ndiaye di nuyu téléspectateur euh, euh, li xew ci biir internet ak midi plus bien sûr di leen dalal ak jàmm di leen naan ay ca leen on commence une nouvelle septembre dama kontaan na ndax dañoo dugg septembre. waaw septembre lañ dugg sa sa mois la. Eh. xam naa ci loolu <laughs> monsieur Diouf léegi moom message tamit waxal libre. <laughs> monsieur Diouf ñu ngi koy nuyu bu baax moo tax ma bëggee léegi tey bu ma la classe ay ñaareel ay ñetteel ak yooyu tey moom. te ba foo Avant de partir, je vous dis ceci. Aujourd'hui, spécialement, je m'adresse aux hommes. Avant de chercher des bonnes femmes, assurez-vous que vous êtes des bons maris, car un mauvais chauffeur peut gâter une belle voiture. mais man ñi wax naa dañoo commencé changer journal bi ñoom tey yëpp nii la ñuy chuté nii la ñuy chuté seen tegaat bi yow un un mauvais conducteur peut gâter mais quelle vérité matin mais quelle vérité doo kii su ma jegoon ma baat rek ko yow baax na ah ma lay neexal nii rek ngay kii di ko dédicace nii Dieng Dieng ndax yaa ngi dégg li mais commercial Dieng euh, directeur commercial <laughs> jaajëfal nañ ko bu baax a baax léegi. Mhm. Euh, nii laa bëggoon kii réchauffé ko tuuti quoi ndaxte tey dafa kii woon ma ko koy neexal xam na d'habitude. waaw mairie dama koy tooñ ay ñaareel. bëggul dégg loolu. Mhm. ma koy jox leneen. mais tey yii rek laa ko def pour mu mhm. am pêche quoi. dëgg la. ma doon yëngal nii. yeex na waaw yëngatu naa léegi ñu njëkkee ci information yi. ay ca na ci yi jàll ci réseaux sociaux yi mais dañu leen koy tënkal rek daal di leen koy dégtal ngeen gën ci am information yu wér te wóor président Diomaye mi dem dem voyage yóbbaale meilleur ñaari meilleur waaw loolu loolu dafay waaw je pense que loolu mën na gën a yokk motivation euh, nit ñi. Mhm. ah euh, pour. Euh, xale yi sax laay wax mhm. pour ñu gis ne que ne tey jii bu ñu mhm. nekkee meilleur élève mën nañu ànd ak ki nga xamante ne moom moo di le président de la république de tous les sénégalais dugg ci jet bi jàkkaarloo ak moom li honneur la et un honneur ne se refuse pas Mm-hmm. di ko bokk ci boo voyagé ndoog ak président vraiment rêve la war a doon pour xale yëpp en tout cas chapeau euh, moom euh, kii di Amadou Bachir ak euh, Zeyna mm-hmm. ñu bokk demandoog voyagé ndoog comme ni ko waxee fële ci Chine en tout mm-hmm. cas internet yu bari rafetlu nañ ko ñeneen ñi lu ñu rafetlu tamit mooy li ñu bëggoon gis image yu meilleur ingénieur sénégalais yi nga xam ne ñoo lancé woon satellite bi waaw ñi nga xamante ne ñoom ñoo daal di créer satellite parce que boobu ba léegi ñu ngi leen di wax satellite gaynde bi et tout mhm. mais gannaaw satellite bi il y des sénégalais et de jeunes sénégalais des ingénieurs yoo xamante ne fii ci réew mi la ñu nekk gis nga leen ni. Mhm. Euh, ñoom ñoo daal di fabriquer la satel le satellite plutôt euh, gaynde euh, ZT1A. E donc am Sénégal quoi version Sénégal. waaw version Sénégal donc Ismaïla Sall. Mhm. ingénieur chef de projet la. depuis 2021 Issa Dia ingénieur depuis 2021. moom am na vidéo bi waaw Aïssatou Sidibé am na mhm. jigéen mhm. moom tamit ingénieur la Mamadou Lamine Ndaw Moussa mhm. Fall euh, Jean-Claude Joseph Badji euh, Massamba Saré Moustapha Diop Khady Seck beneen jigéen Dibi Mbaye Ousmane euh, Diop ñoom ñëpp ils sont ingénieurs depuis 2021 loolu am na solo ñii ñoo def Aïssatou Sidibé ñi ñoo def jaloore bi bërki démb fële ca fële ca États-Unis Moustapha Diop ñi kanamam bi ça me dit quelque chose ah xam naa sûrement da nga ko xam rek ci ndaje yi ah, ah. sama kii kanamam bi sama di quelque chose. xam naa xam nga ko. wala ñu jàngandoo rek. Ah. Mm. mais en tout cas chapeau. Mhm. yii jar na ñu partage ko bokk na ci li xew ci internet bi. ndax mhm. fan yii yëpp yéen ngi doon gis seen tur yi. gisoo leen woon seen. kanam yi ngeen gën leen a ngeen possibilité. Eh, même bu émission bi jeexee ngeen xool ci replay bi macha allah jëlal yow. am na ah, solo de moi gis bi ma léeree liste bi gis si ñaari jigéen. Mm. dama kontaan. yàlla na yokk. walla amiin. yeneen jigéen voilà les jeunes femmes non jigéen ñi vraiment chapeau ah. gis nañ liggéey bu am solo bi ñu ciy def. ci ci domaine yëpp ah. di sekk domaine yëpp. Mhm. gis nga meilleur élève bi boo nee meilleur élève Sénégal toujours jigéen na ngi ci. waaw ci taxawaay bu solo. est-ce que du nekk ci voilà nii <laughs> la yi am na solo leneen ci information mooy lu viral mooy vidéo euh, jumaay Tiwaawan bi. waaw ne mais jumaa bi tamit. Ah, ah, ah, non mais loolu la beauté de ça là ndamu Sénégal. comme on comme si c'est rien la beauté de ça. vraiment vraiment. comme comme si c'est macha allah. macha allah. voilà lii euh, mooy jumaa yi Tiwaawan ji nga xam ne ñu ngi ko fas yéene inauguré euh, le 13 septembre ci waajtaayu gàmmu gi. Mm. sama bay euh, ci boppam ñu ngi ko fay xaar. Mm. ci euh, bis boobu sax. Mhm. le 13 boobu annonce bi gis ngeen ko ci réseau yi. gannaaw mi ngi leen fi incha allah. ak euh, télévision Futurs Médias xam naa dara du leen ci rëcc. yi mhm. inauguration jumaa ji nga xamante ne ndamu lislaam la ndamu mhm. Sénégal la. en tout cas ñëpp am nañ ci mbégte ci réseaux sociaux yi ci saa si bi ñu publier euh, partagé vidéo yi ñëpp gis nga kilifa yi doon defoon fa ak visite. ñëpp bég ñëpp doon commentaire bi benn la Sénégal lislaam géeg diine gi. yàlla na gën di wéy di sox ci effectivement waaye surtout euh, taxawaayu jullit yi nga xamante ni def nañ lu ni mel lii daal nekk na li nga xam ne internet yi sa salué nañ ah, lii moom rafet na te képp ku ci dërëmam aussi dem mhm. ñu ngi lay ñaan yal ko yàlla fuul wàcceeku si say njaboot ak njaboot njaboot ah mhm. donc li mu nekk lu ñuy rafetlu franchement juma bi rafet na euh, li yàlla nañ ci yàlla yeggale ci jàmm benn ñaari ràkka am na solo waaw léegi balaa ñoo dugg ci intelligence artificielle am na benn vidéo moom ngoon nga xool ko de mbaa jàmm la rek. acca say vidéo waaye bi mu gisee caméra bi dafa découragé. xam nga ni la may fàttali. sama benn cousin Mouhamed Ba lii la doon mu nekkee xale. lii ñëpp ci jaar wala sa de ñëpp ci jaar ñëpp ci jaar nii la dañuy informer alerter waaye reetaanaale tuuti dafa ànd ak émission li xew ci biir euh, internet bi léegi nag ñu waxtaanee. mbirum euh, fausse information yeeg alerte yi chaque jour ñu ngi koy waxtaanee. ba bi tàmbalee ba léegi. mbirum intelligence artificielle bi mm-hmm. ñu jóg ci di ko waxtaanee. Mm-hmm. moo tax tey ñu waxtaan ak euh, Souleymane euh, moom toujours min na émission bi. Mm-hmm. Souleymane Diallo Souleymane Diallo ngir alerter encore une fois ci arnaque gi nga xam ne ñu ngi koy def à cause de. intelligence artificielle. waaw di rappeler rek gars yi que ne intelligence artificielle na toll na foo xamante ne nii euh, mën nañu jël euh, vidéo euh, mën nañu jël figure plutôt personnage public boo xamante ne nit ñëpp dañ ko bëgg ñu daal di ko waxloo defloo ko ay affaires yoo xamante ne du moom te bu boo boo boo seetloo bu baax boo bàyyee seetlu di xam ne du moom mais à première vue comme nit ñi dañuy seetaan rek di romb loolu mën na nekk loo xamante aussi nit ñi dañ si war a def attention présentateur journaliste

Beaucoup me demandent, Sadio, comment commencer à gagner beaucoup d'argent. J'ai trouvé une façon et aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils. voilà lii c'est faux gis ngeen ko ci réseau yi ñu ci bari nag dañ leen nii def nañ si ba euh, def si soxna naata voilà bari na ci ñu koy ñu mhm. koy def donc dañuy jël ay ñi nga xamante ne dañuy jàpp nii ay. taskatu xibaar lañu. wala mhm. leneen information yi ñuy joxe lu wér la. Mhm. alors que ay fausses information la ñuy joxe. waaye lépp nag. ci intelligence artificielle moo tax ñu waxtaan ak euh, Souleymane Diallo toujours ci émission yi moom formateur la ci mbirum intelligence artificielle mu jox ñu ci explication ak nit ñi nan lañ war a gën a mën a moytoo mm-hmm. yi nga xamante ne ay plateforme laak yenn ci yi nga xam ne mën na jur ay jéeya ci euh, internet bi ñu seetaan ko ñëwaat dafa am solo public bi mën a conscient ci danger yi nga xamante ne daal mu ngi ci loolu lay ba pare nag mu xam nan lay def ba mën ci euh, protéger wu. Euh, li njëkk mooy nit ki bañ a euh, paniquer bu fekkente ne situation bu mel ni yéen yéen a ci confronté wu bu leen paniquer ndaxte. criminels yi ñoom li nga xamante ne daal dañ dañ koy def moom mooy euh, ragal gi ngeen di ragal wala boog tiit gi ngeen di tiit ci loolu la ñuy sukkandikoo ngir mën leen manipuler donc nit ki dafay am solo lu mel noonu bu amee mu daal di garder calmam ba pare it mu daal di vérifier authenticité euh, contenu yooyu leen ndax loolu ñu ko woon ndax dëgg la euh, wala déet. te ba pare nag nit ki bu mu euh, gis loolu rek daal di tontu wala boog daal di yónnee xaalis ndax laaj nañ ko ko euh, foog nit ki daal di vérifier euh, li nga xamante ne daal gis na ko ba pare balaa muy jël bépp décision. beneen li ñu ciy yokk mooy am na ay outils de vérification ngir mën a ràññee bu baax a baax di fake yooyu la logiciel yi bëri na ay logiciel la yoo xamante ne daal boo ko boo dugalee. voilà Souleymane am na solo mi ngi doon waxtaanee ci nit ñi nga xam ne parfois dañ leen di nax. Mhm. grâce ak euh, à cause de intelligence artificielle utiliser leen naan boo ma envoyé wulee lii sa vidéo bi kat te loolu ñu créé noonu amul. Mhm. moo tax mu ci doon ñëw di wax ni nit ki bu la dalee da nga def ndànk ànd ak dal. Mhm. waaye surtout gën di vérifier. baax na ci ci internet ak réseaux sociaux. moo tax yenn ci euh, plateforme wala application yi nga xam ne day vérifier. gën a leeral deepfake yi bari na. ci ay vidéo deepfake création yi nga xam dañ koy def toujours c'est deepfake. Mm-hmm. yu ñuy euh, partagé ci réseaux sociaux yi. te boo seetloo sax voix yi nga xamante ne mooy intelligence artificielle bi wax c'est assez saccadé. Mm-hmm. dire du nekk xam nga voix normale comme ni ñu koy déggee nii dafay nekk euh, en mode continu. Mm-hmm. mais bu dee voix intelligence artificielle dafay saccadé. meme si dañ koy def ay une certaine vitesse donc il faut ñu gën a teey. gën ànd ak dal. ci li ñuy seetaan ak ci li nga xamante ne moom la ñuy partagé. du ñu jóg ci alerter leen informer leen sensibiliser leen gis nga euh, par keroog rek barki démb. fausse mm-hmm. information boobu ñuy joxe ne kooku ne benn nit ku ñu ne dañ ko jam fii ci Sacré Cœur. alors que c'est une fausse information alors que c'est une information. kii nekkate mi ngi génne àddina ci euh, accident. oui effectivement donc euh, il y a dafa am benn rumeur bu daal di génn mais gis tole bi mu def diggante 10 minutes rek. ñëpp di ko partagé ba mu créé psychose. lu ci nekk naan waaw wóoratul dégg na fii génn fii alors que kii moom accident euh, moom moo ko daal rey et euh, euh, ñu jël photom di ko placardé partout il a fallu que les proches réagissent mhm. pour que ñu xam ne ne du moom bari na ci mm. gisoo léegi ni ñu def Badara Gadiaga Badara Badara Gadiaga gulu gulu moo moo bës bi ay waay gulu gulu pas gulu gulu moo tee bës bi gis nga ni ni intelligence bi waaw décortiqué bi décortiqué bi mais mën nañ seetaan décortique ba pare ñu koy feccal acca way wi gën a dox ci TikTok tay way wi gën a dox refrain bi danaan danaan gulu gulu gulu gulu gulu gulu mhm. naan sa vodi takk sa sim muy daw mhm. danaan gulu gulu mooy alcool bi boo koy jolu ñu muy mhm. defee gulu gulu gulu naan sa vodi mooy alcool bi takk sa sim nante bu mel na man sim mooy simol dañ koy xam ñun. Mhm. mais est-ce que yéen ñii xam ngeen loolu. Mhm. Mhm. est que sa doom buy ñëw sa néeg naan danaan gullu gullu gullu gullu gullu naan sa vodi takk sa sim muy daw est-ce que da nga xam ni day wax. voilà euh, Badara Gadiaga temps yi moo bi mi ngi joxe analyse am bi c'est tellement man de gis nga bi analyse bi génnee dama dégg ay parents yu ma woon naa ma maintenant. man dama daan dégg gulu gulu pour man benn expression inoffensive la nii mais nee na waa ji nee na doom bi fu mu dégg te gulu gulu day dóor. naa la non. gulu gulu oui oui non en fait c'est que en fait. le fait que ngay naan mu naan gulu gulu gulu mais ils n'ont pas fait la la jonction des choses en fait. Mm-hmm. kii affaire bi. il est très pertinent ci li muy wax. Mm-hmm. mais ñi muy yedd la dara saful. <laughs> waaw loolu tamit am na. xoolal ci saa mais au moins parents yi xam nañu Pape. oui waaw waaw surtout au moins parents les innocents léegi xoolal les innocents ce sont plus les jeunes les innocents ce sont les pauvres parents. dëgg la ñoom dañuy jékki-jékki gis seen doom di challenge naa yi ñu ngi seen affaire TikTok yooyu de waaye léegi moom defe naa bii na bal ba kalaate na. <laughs> bal ba kalaate na El Hadj <laughs> euh, je pense ñu ngi jeexal xanaa beneen challenge bi laal bëggoon kii wër rek xam nga nit ñi moom bu problème amee. foog ñu génne si leneen. Aziz Dabala noonu daf ñu créé beneen challenge. mais t'as vu vidéo yu ñu wone nii foofu la ñu reyee Aziz Dabala ak. Wally foofu am deret et tout ça alors que du vidéo du. du vidéo bi. non non loolu mais recherche vue rek. toujours nit ñi ñi ngi bëgg ñu leen suivre sur TikTok. dañ en rouge ñu ngi bëgg ñu leen di ñu leen di xam nañ ne actuellement nii loolu mooy. information bi sensationnel bi dañ ciy mhm. dañ ciy profité. mooy comme li ñu doon wax semaine dernière rek toujours dañuy profité ci moment yi ngir joxe des fausses informations. donc il par exemple quand il disait que j'étais mort que j'étais mhm. malade. Mhm. damaa jaaxle mais yow ci sa bopp dangay ngay jaaxle quand j'ai vu ay nit di toog ci ay plateau naan maa ko gis bi ma seetalee dama koo gis di di wax di waat dama naan mais attends yow da ngay jutewu sax sa bopp fausse information li mu mën a def non yow même ça tu dois te toucher pour te dire est-ce que man je vis c'est grave ah oui man man dañ ma woo man c'est une de mes proches qui m'a appelé ne waaye yow dama dégg Pape Cheikh ma ne ko dama dégg lan dama tiit mais man dama foogoon ne sax damaa damaa dee man jékki-jékki naan nii est-ce que da ngay jékki-jékki seet sa bopp deewuma est-ce que feebar feebaruma loolu yëpp mais ils ont fait ba gis naa ci photo boo xamante ni dañ ma defaral masque à oxygène bah oui hein, c'est sur YouTube. oui dañ leen dañ ma defaral masque man musuma musuñu ma defal loolu maa damay taali je touche du bois yàlla buñ ma ko defaral. wala yàlla na yéex ñu ñu koy defal itam gënuñu ma. parce que feebar moom ñëpp lay dal ça n'arrive pas qu'aux autres. comme je dis tout mais fausse information information bu dul dëgg léegi dafa bëri. ba pare yomb ci ci dafa yomb waaw. dafa yomb dafa yomb defar. te xamuñu tout le mal que la maa toog ak nit. <laughs> Hmm. maa ma noo man kilifa laa bu mag. damay waxtaan ak ay kilifa Sénégal génneel ma ay message WhatsApp ne ma nii Ousmane Sonko moomu ko bind jomaay lii la ma wax diw lii la ma wax nga gis effectivement da ngay gis jomaay ak photom ak texte mu mel ni comme si jomaay ak ko bind mais man mi nga xam ni njàddiri laa def naa guerre yi yëpp fekkee naa uffeet wàññi <laughs> barki Sëriñ Bamba tele bu fay sax xam naa li ciy daw de man nga war a jàkkaarloo ak man rek di ma woni di ma woni fen naan ma xoolal lii dama ko il faut faire la part des choses par exemple il y a des applications xoolal mën naa la woon plusieurs applications yoo xamante ni mhm. yoo xam ni mën nga créer ay fausses informations mën nga créer fausse conversation WhatsApp mhm. effectivement tout ça j'ai téléchargé pour pour xam exactement ñi comment ils font par exemple euh, il y a un il y a une application que j'ai vue hier xoola mu ngi tudd fake d'ailleurs fake la ñu bindee sax la ñu mhm. tuddee sax application bi boo duggee ci application bi mën nga créer fake news bien mm-hmm. mën nga bind information de telle sorte que da ngay foog ni ay média bu crédible moo bind information boobu donc loolu pour news la xoola lii mën nga crée fake mail fake mm-hmm. mm-hmm. mën naa ko créer léegi day mel ni comme si dama wax ak nit sur Facebook WhatsApp prank WhatsApp prank bii nag mooy rey nit ñi fu mu ne nii whatsapp prank bi whatsapp prank bi nag moo lëmbe dëkk bi mën naa créer loo xam ne day mel ni damaa discuter ak nit. bii nag mooy mooy mooy lëmbe dëkk bi nag. mooy lëmbe dëkk bi nag whatsapp prank whatsapp prank moom mi ngi mi ngi mi ngi lëmbe dëkk bi c'est grave. ouais ba pare dañ koy def di la ko di di non c'est incroyable ba pare ne la xoolal mi ngi nii discussion baa ngi nii. c'est incroyable sa photo profil la ñuy télécharger rek def ko ci. parfois da ngay tiit sax sa photo yi ngay dugal. ba xam ndax diñ ko non c'est c'est mais toujours nañu moytu rek. waaw nañuy moytu bu baax ci internet ak réseaux sociaux toujours di def mm. ndànk et puis tey euh, ñaaw njort. Mm-hmm. daf ci daf ci def ci baax. fii fii la ñaaw njort nag. Euh, amee sansam waaw ñaaw njort nag. am fii la amee sansam moo tax sànq mi wax ci fausse image yeeg fausse yu ni mel. Mm-hmm. Euh, na ci moo tax ñu waxtaan ak Moussa Ngom je pense extrait bi bu paree mu wan ñu réversi bi. nan lañ koy def ci photo yi ngeen gis. ñi nga xamante ni am ngeen ci ay doute kañ la dugg ci internet. Mhm. xam na dañ ko fi doon def mais tey ñu mhm. waxtaan ak kenn koo xamante ni journaliste la mais mbirum fact checking lay lay lay lay lay liggéey. yaa yow la de yow yaay présenté journal c'est dommage que mënu ma ko teg ci télé bi parce que télé bi dañu am problème mu internet. Mhm. compte yu ñu bloqué rek doy na yoon na sëkk. mais am problème mu internet teg ci xoolal Mamadou Ndiaye mooy présenté journal bi de. Uh-huh. mais kanamu oustaz Modou Fall laa ci def. gis nga loolu. maanaam ni su ma ko tegee ku xamul day foog ni Modou Fall moo sol costume cravate di présenter journal bi. xoolal loolu. te laa ko yaa ko créé nii léegi léegi. waaw ma bàyyi. yow fi ma toog ma mën a créé yeneen sax lu gën a garaaw yi. kon nag nañu moytu te xam ne ne tout ce qu'on voit n'est pas forcément la réalité. voilà. mais Pape ci élange boobu ci élan boobu rek ba ma ko mayee deux une minute. Hmm. ne c'est intéressant mu Moussa extrait Moussa Ngom bi. Hmm. Euh, mu wan ñu application bi nga xam ne moom la ñuy vérifier photo yi. ak ni ñu koy defee c'est juste une minute ñu image boo xamante ne daf la xaw a jaaxal donc ñu ñëw fii ci suñuy signé benn euh, publication boo xamante ne seetlu woon naa ko donc euh, imagine woon ngeen nekkoon si Twitter di naviguer di scroller ba si yàgg ngeen gis publication bi. donc kii li mu wax mu ne cette petite fille aime le pape euh, son papa est musulman maanaam papaam musulman la euh, te moom dafa bëgg pape bi léegi mu ne papa ji nga xamante ne musulman la moo koy jàppale ngir mu mën koo euh, bénir mu ne voici la plus belle photo au monde maanaam nataal bi dàkk ci àdduna bi euh, jullit ak chrétien lu tax ngeen xeex seen diggante xool leen photo bi ngeen wax ñu lan ngeen di yëg donc ñun ñuy gis publication bi mu xaw ñu jaaxal maintenant pour vérifier ko. dañuy dem ci suñu euh, application bi tijji ko euh, gis nga application boo ko tijjee di nga am ñetti option yi mooy sélectionner à partir de la galerie mooy dem ci say image sélectionner image bi nga xamante ni euh, mu ngi ci sa album ci say ci sa portable la nekk wala am nga possibilité également photo jël photo imaginons nga nekkoon ci sa ordinateur nga gis photo bu la jaaxal mën nga dugg sa téléphone Euh, nga photo ko carrément après nga jëm ko recherche sur internet wala ñu ne euh, adresse bi nga xamante ne sur internet nga ko jëlee pour def recherche bi directement ma ñun li ñuy gën a intéressé mooy select from gallery mooy ñu sélectionné li nga xamante ne mu ci suñuy euh, suñu photo maintenant li ñuy def mooy gisoon nañ sànq publication bi dañuy njëkk dugg ci photo bi enregistré ko donc ginnaaw bi ñu ko enregistré ñu demaat ci suñu application. Euh, dañuy def fii select from gallery ñu sélectionné photo bi nga xamante ne moom la ñuy recherché donc moo nekk photo bi ñu bës ci bouton bii ngi search muy recherche donc mu ngi dem euh, nànk nank gis ngeen dina am ay résultats yoo xamante ne dinañu ko wan waaye dafa xaw a cadre image donc dañ koy recadrer ba mu leer nga xamante ne dina jël photo bi yëpp dinañu rechercher photo bi yëpp donc lim ñuy wan mooy ay ay ay publication yoo xamante ne dafa sukkandiku ci photo bi euh, léegi yow ci résultat yooyu noonu moom lañuy ñuy jël euh, jéem a xool loo xamante ne xëy na dina nettali la mooy taarixu dëggu euh, photo bii nii yenn saa mu doon vidéo yenn saa mu doon ay article yoo xamante ne dañuy sukkandiku ci image bi wax ne li moo xewoon jamono ji wala diw. voilà mi ngi noonu gis ngeen reverse yi. mooy euh, application bi nga xam boo ci dugalee image photo booy dutewu mhm. ni mu ko joxee ci tuto bi noonu boo ko dugalee dina la wax photo boobu kañ la dugg ci internet. Mhm. dafa judduwaale ak iPhone yu bees yi sax. ma ngoog ak ban contexte moo taxoon mu dugg ci internet pour la première fois. Mhm. loolu dafa am solo parfois nga gis benn photo mairie bi ñu ne mairie ma nga tiwaawan alors que mairie mi ngi fii. ñu ngi ko dugal changé ko jaxase xelu nit ki ba bu gisee image bi wala. information bi day yaakaar ni dëgg la te loolu du dëgg moo tax loolu nekk na lu am solo Moussa di ko jaajëfal moom tamit journaliste la mbirum fact checking ci lay ci lay yëngatu di ci former yeneen i journaliste fi jamono toll ak internet ak yenn ci xeexum fausse information yi voilà daal di tàggatoo kon. mën na waaw kon kay xanaa di leen jox dig daje demain incha allah si beneen numéro lu xew si biir internet en compagnie bien sûr de Alaaji Pape Cheikh le bon vivant. ben merci hein. <laughs> on va continuer waxtaan bi ak ak suñu invité mais j'aimerais tamit ngeen wax ak euh, waa internet pour ñu jàppale association bi. déjà ñu ngi jëm ci journée euh, journée le 7 bi. oui euh, ñu ngi may laaj numéro téléphone bi. peut-être pour ñi nga xamante ne ñoo bëgg a jàppale association bi.